li ngeen war a wax affaire développement on termine rapidement d'accord vite fait développement économie emploi xam nga ut ay jéem a trouver ay solution comme que solution nga nga nga tuddee sa bopp xaaral rek ba ma pare xam nga ngeen jéem ngeen dem def loo xamante ni pour dëkk bi jëm kanam Sénégal jëm kanam mais di ngeen fi wax ni amul benn njëriñ mais déglu ma amul benn njëriñ comprendre nga par exemple su yéen a wax ci affaire affaire dat yi ñuy jàpp le 14 euh, ax le quinze 14 mais mën ngeen si génne ay réflexion yoo xamante ne nan lañ mën a def. ba Sénégal dëkk bi kenn du ko taal nan lañ mën a def ba garantie sécurité bi comprendre nga loolu moom moo gën a amal njëriñ sénégalais. ki ngeen nekk fi Ousmane Sonko di waa ak nous allons faire face affaire yooyu bu ngeen fi toogee bële li ngeen wax débat bi dafa baax quoi franchement je suis désolé de le dire comme ça mais dafa baax quoi. xam nga non non non da war a wax yoo xamante ne moom moo war a jëmal Sénégal kanam xam nga lii ça vous moo tax du ma jubóog policiers d'habitude suñu leen invité ci plateau yi. il ngeen di wax affaire emploi affaire développement. amoon de non mais loolu la c'est c'est ça. loolu lañ loolu lañ fi doon wax mais yow li ngay def sëñ bi déglu ma wax la déglu yow li ngay def yow xam nga daal tu laisses pas les gens parler nit ñi dañuy wax ku wax nga bëgg nga boo ko dagg sànq ba yaa ngi wax man dama noppi tàgguma la benn yoon comprendre nga su ma wax da nga may déglu xam nga dama la wax loolu moom moo moom moo war a nekk seen sacerdoce Euh, solution yow mi tuddee si bopp solution da war a apporter ay solution comprendre nga xamal ma la est-ce nga da war a apporter ay solution mhm. yow tamit nga bàyyi danga sante bi mhm. Kajoor mu ngi lay poser mu ngi lay def ay suggestion yu intéressante mhm. réflexion bu intéressante la mais au lieu nga jëlee ko déglu ma rek au lieu nga jëlee ko si paradigme boo xamante ni nga nga nga bëgg ko danga sante c'est pas ça c'est pas ça xam nga beneen pour ay notes yu bëri mais su ko déglu sa notes yi. nga def benn réflexion au moins.